يلم يوبو خمنا من تيوتو نبوتي سيد أحمد التجاني كله غوري جوحنا لين لهم جيجيني نوينا لين سافوان تأك نوم تخل نيانا نبوت جيتم قدقي مودم وانا خمنا وقت بخونا خطوتي وينك خمنا نيجوتاي بني يالا ميتي قدقي doonte gàtt na waaye nekk na diir boo xam ne buñ ci doon ratt bay ratt nañ ci fukk gannaaw yàlla may nañu diir boobu kon am nañ ci li ñuy fàttalikul xadis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam الجلوس أمام ولي بقدر حلب شاة أفضل من عبادة أربعين سنة rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga toog jàkkaarloo wëliyu diir boo xam ne mun nañ ci moo la gënal ngay jaamu yàlla jaamu ñeent fukki at bu ñu nangu liñ fa mën a am toog jàkkaarloo wëliyu diir bu ñuy rat béy moo la gënal nga jaamu yàlla kooku wëliyu mu nekk lañ ko wax waaw baylu ka bu la yàlla joxe nga toog ki nga xam ni mooy suuf bi nga xam ni ci lay wilaaya lawla Seydi Ahmad Tijaani maa kaanat wilaayatu ndax moom moo wax ne laa yushrab wala yusqa waliyyin illa min bahrinaa walillaahi alhamd waliyu bu nekk boo demee ba ba teg sa kaw bopp kaala waliyu dafa fekk ne cheikh moo la nàmpal boo leen nangulul doo dem loolu tax min suruuti tariqa am na ci suruutu tariqa ixtiraam jamii al awliya même bu ñu bokkulee ci tariqa lu tax ñu leen war a ixtiraam boobu ci liñ namp ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu naxtarimu kullu al awliya Seydi Ibrahima Riyaahi dafa wax ne rabbi إني صدقت كل ولي راعي قدرهم بعين احترام وإن غير أن ابن سالم هو شيخي وعمدتي وملاذي وإمامي في هواه المطاع طاوعت نفسي وعلى بابه ضربت خيام إن يكون راضيا فذاك فوزي بجميع المنى وحسن الختام تقوى أحكي مو يروان جامع زيتون بنك تونس مون نيكون بابو الفقه مون موي نيوتي واخني دينم موي ومن محبته ديني وخلته عقلي وروحي وجلاسي وأحلاسي ومسمعي وفؤادي وانبساط يدي ومقلتي ولساني بين شماسي كي سير ابراهيم الرياحي سير ابراهيم الرياحي بنت مذهب المالكية ودمي تونس ولا زيتون ولكم ووخي وزيتون من هو شيخكم وخمني كم كفتي في التاريخ نوخل سيد إبراهيم الرياح بكون يصلي طرب وإنني بقوا لي سنت يا rek nahmadullah wa naskurullah tabaraka wa taala guddi gi yàlla may ñu at bu jógee nañ fu nekk ñëw di ko fekkee ndax xam nañ ne guddi gi Cheikh na Tijaani moo ko moom Seydina man xam naa programme am yàlla xam na ne suba suba neuf heures ci suba mi ngi tax waaye nag mu ne guddi gi du ko raw kon nag dafa fekk ne guddi gi guddeem guddi gi Tijaani la surtout nag bu fekkee waa kër gi ñooy woote هذا سر لا يالا ديف كم شاعر بالموت بيني وبينكم في المحبة نسبة مسطورة عن سر هذا العالم يالا مو بولي سر موبو balaa ñuy defar tiinata aadami di leer amoon diggante leer rasulillah ak Seydi Ahmed Tijaani ci la feeñalee ashaabi rasulillah wa ashaabi cheikh ñu nag ci loolu lañ bokk tànk yi Seydina ji ñëwee fii mi ngi ci wutu xadra Cheikh radiallahu taala anhu ndax xadra bi mooy xadra Cheikh ñu ngi nuyu famille bi ziara taalibe ñëpp ñuy jóge fu nekk ak feneen fu dul Sénégal sax ku nekk Seydina mi moom moo lay tatagal ci boppam ndax yaa ngi ñëw ci xadra Cheikh yaa ngi ci kër Cheikh Ibrahima Niass mais nuyu njaboot gi alhamdulilah dégg nañ si loo xam ni bett ñu de ndax xadra bi moo mel noonu waaye dégg nañ si loo xam ne neex nañu trop bu ñu déggee shababu tariqa di génnee mbóot yi nekk ci tariqa bi loolu ñun dañ ciy kontaan suñu xel dafay gën a dal ndax tariqa bi tariqatu ilmi du tariqa wax rek déedéet lu ci شيخ جياني دابا واحد كل ما قلته من املاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو خامني تانكم دودر لودر دوندر هاد الشريعة لولو لن يبري ديكول ني واخ افيرو بدعة بدعة موي لو خامني لو جيني لو بيس يونتو بايو كوفي waaye koo xam ne yaa ngi bëgg a beesal lu fi yonent bi indi loolu mënul nekk bi la ndax sharia rasulillahi moo ko fi cheikh dafa wax ne ida samaatum anni cheyan fazinuhu bi misaan shara sharia rek moo ñu mën a at waaye ñu bañ a guddal wax bi waxuñu ko lu dul ci buntu fàttaliku zakki fa inna zikra tanfaul muminin yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla fay leen ñu ñu nuyu nuyu bu mat suñu mbokk suñu doomi baay salaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Chérif Ibrahim kontaan Chérif Abdoulaye kontaan nañ bu baax ci daje ak moom kontaan nañ ci bu baax Cheikh na Tijaani léppam ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rek انك الفضل واصل الفضل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم شريف كونتان المباح سيدنا مليم المباح ديال نيان ديال ديال زيارة زيارة فمي بيك سيدنا رسول الله يب بيه ديال باي سيدنا كنو سيدنا مليم ديال بساكو سيدنا نيان ديال نيان يلا يلا بارك الله خمنا انك كنك واحنا في سعاجي سعاجي Seydina mënu ko téye yëpp ci xelam waaye nag fu muy teg seen aajo ci buntu ñaari maamam yi la koy rawalee. yàlla ëpp na di delloo ñaan bu jaar ci buntu li ci des du ñu wax du ñu wax Seydina mooy ñaan. te xam naa ne dina guddal ñaan ba ku nekk na teewal sa xaaju bu leen fàtte nag suñu réew Sénégal ñoo ko bokk yàlla saxal fi jàmm amiin ya rabbi rabbil alamin réew yu bëri ñu ngi yëngatu fu nekk ñun nag Sénégal bi man ñi fi nekkoon radiyallahu anhum ajmain ñun ñii lañ ko dénk amaana amaana fi arqaabina jamiian dëkk yu bëri ñu ngi yëngatu waaye ba léegi Sénégal yàlla ngi fi def jàmm jàmm jooju tarbiya boobu nga xam ne mag ñi ñoo ko fi bàyyi yàlla na fi des yàlla na fi sax mag ñi niñ yaree taalibe yi ci hadratu Cheikh yàlla na yàlla gën leen ci saxal yàlla saxal ñu ci tariqa amul dara loo xam ne moom lañ mën a demee ci suñu borom ëllëg إن عمل بني آدم يذهب مجانا إلا من تغمده الله برحمته قل لن يبرس مرو أمون يبدأ منكم لدل رسول الله صلى الله عليه وسلم لولو موم خلبو أبريك نفك نفرق لك لن تولي كي فانك لسخ لا كارونكم لن يويد مون لن يويد مون يفا يا كارونكم وإنك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب سيد احمد التجاني kooku suñu maam yi dañ ñu ko nampal dañ ñu ko nampal ba ci biir te moom rek lañ yaakaar maxibba boobu nag la ñuy fekk ci xadra bi nan nga leen ci yàlla sax du ñu fàtte soxla kenn kenn ke rek laa ci tudd mooy docteur docteur Seydina nee na li Ahmed wax dégg na ko yenu na ko ci barke Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ñaan na faj seen aajo yi ñëpp jigéen itam Seydina fàttewu leen Seydina na jigéen ñi fàttewu leen Adja Sow Seydina na fàttewu ko fàttewul seen i njaboot xam nañ jigéen ñi li ñu yenu bu ci dëgg-dëgg bu ñu wootee hadiya xam ne jigéen ñi kenn bu ñu wootee liggéey xam ne ñun jigéen ñi kenn du la lool sharia moo leen toogloo fi ngeen toog waaye nag buntu boobu yàlla daf ci wax wa fi dalika falyatanaafasil mutanaafisun ku nekk ak sa pas-pas rek yal na yàlla faj seen aajo yi ñëpp yal na yàlla barkeel seen i njaboot njaboot yi nekk ci école yi na yàlla defal leen ndam ñu nekk ci seen liggéey yal na yokk seen daraja ñi nekk ci daayira yi yal na yàlla mokkal loo leen alquran te buñ ko mokkalee yàlla nañ ko dégg te buñ ko déggee yàlla nañ ko jafe jahid nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaw xam naa tey naa nee na ci dars bi nga def sàmp ci laa ilaha illallah bu waxtu bi desoon lu gën ci yokk leneen waaye li nga wax doy na fa tabarakallahu ahsana xaaliqin yal na yàlla def tey nit ñi njëriñoo ci yow jaay rasulillahi ba ñu njëriñ keneen ku dul ñoom waaw sëy naa nee na yéene boobu nga wax ci kaw yal na la ko yàlla dëggal jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te mu gaaw incha <laughs> ku nekk nañu bëgg ñaan léegi seen naa nee na ku nekk soxlawul ngay wax sa aajo wax dégg wallahi dégg yéene ko ci sa xol nga xam sa bopp ne nga xam sa bopp ne yaa ngi jaakaarloo ak dëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi jaakaarloo ak dëggitu Cheikh Sidi Ahmed Tijani na teewal ñooñu soxal teewal sa aju incha allahu taala boo fi toogi bu ñu yàlla mayee ba ñu toogaat fi déwén dina sant yàlla wax ne sa aju faju tey naa ne la xam na ne ñu bëri ci yéen gis nañ ci seen bopp yokkute yàlla nag dafa wax ne asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yàlla moo gën a xam lu gën ci jàmm jaam ji léegi dina bëgg dara fekk lor moo ko ci fekk léegi léegi nga bañ dara fekk xewal moo ci nekk kon nag booy ñaan deel ñaan toujours loolu ngay ñaan ñaan na ànd ak bëgg-bëgg suñu borom yàlla defal la ci xewal defal la ci barke yàlla yàlla barkeel njaboot bi jaay nabi sallallahu alayhi wa sallam ku feebar yàlla ko yàlla saafara ku tukki yal na yàlla déggaloo ay ñoñam ne mi ngi ci jàmm ba yàlla delloo si ma ci ay ñoñam bi xorma ci nabi sallallahu alayhi wa sallam li Seydina di tëjee wax ni mooy ñi nga wax ak suñu lépp ahmad jazakallahu xeyran jazakallahu xeyran jazakallahu xeyran xaqiqatan li Seydina di wax ci yow toujours xadimu xadrati طيب، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يعني سيدنا توجور يعني ووتو فامي بيب مسلم يو دادك سيدنا وقصصه ابدا بيب نبوت بيب جزاك الله خيرا ci gis لي ne liggéey bii ne yàlla nangu na ko rasulillahi du benn ak ñaari at bu nekk tabaarakallahu ahsana xaaliqiina mi ngi yokk yal na jëmee kanam kenn amul amul sa bay guddi gi yal na ak sa mbiru njaboot bi rasulillahi sallallahu alayhi wa آمين آمين يا رب آمين يا رب آمين Gracias. I'm a Ameth dégguñu la Ameth Ndiaye jaay suñu waay ana alaaji alaaji jaane na jege maam xali boppam mu jox lu ci mel dañuy ñëw ci man yow la ci amul bi ni werante ñu ko xalifa tax mu ne wa kullu ladi qad kaana li la sama baay rangoon la ko Cheikh na Tijaani rangaloon ko naa ko yonti yàlla Muhammad rangaloon xalifa rangoon naa ko bàyyi ñas ne ko yàq fii faqaran bi annal hum ko jooy ñu ne ko bàyyi loolu lan la mu ne mbada bahajatul alqurani sidwi wa maljihi xalifatu abdillahi huwal musawadi bakkal hudiyatama wal aramila badama waaw waaw waaw acca